abonné leen ci suñu chaîne YouTube saa su nekk ay xibaar ci réew mi ak ci ñu ngi lay ziar monsieur le ministre des ñu ngi lay nuyu chers collègues honorables députés leen nuyu monsieur le ministre dama lay féliciter ci bi accident yi amee mesure bi bi jël waaye nag ma lay ñaan. fi ñu jëm tey ku ne xam ne tabaski ak gàmmu ak màggal mooy traite transporteur yi doo ñu may rek une semaine avant ak une semaine après pour ñu lever mesure bi ndax oto yi mën a daw guddi gi parce que nag fi ñu jëm ak tabaski yi dañuy yëpp ay xar dañuy yëpp ay jur te chauffeur si ak transporteur yi nag respecté nañ mesure bu baax parce que arrangé nañu nag ñun ñu nekk ci bi à partir de minuit station boo dem wala arrêt boo dem ci dëkk day fees del oto yi dañuy gaare waaye nag boo ñu mayoon une semaine avant ak une semaine après gars yi demoon julli ji Fuuta ak Rosso ak waa Seylu yi mën a ñibbi siwaat danañu arrangé lool loolu nag man maa la koy ñaan ci turu transporteur Sénégal yëpp ak chauffeur yi parce que nag mesure bi nga jël wàññi na accident yi bu baax ci daw guddi parce que ñun ñu nekk tali bi xam nañu circulation yi libre na waaye ñu lay ñaan ku teg xar war dem Casamance nga guddee fanaan ak xar ma mu mot 24 heures métti na ci ñun ñu lay ñaan rek boo fekkee mën nañ def dérogation ngeen may ñu une semaine avant ak une semaine après pour dimbal askan bi nga xam ne ñu dem loolu laa doon ñëw si monsieur damay wax ne assemblée bii tey bëri na ko taxaw ci micro wax na nga waxee sa jikko ko lu solo bëri na ko taxaw fii wax ci micro parce que micro moo la tiim waaye na waxee sa jikko mel xam nañ ci lu bëri monsieur le ministre monsieur le président bul sonn xam nga boo waxee ba pare ak say nawle nga toog danga wax war a assumer nga toog ñu tontu la ñu assemblée bii lu fi waay wax am nañ si tontu nous sommes tous des citoyens sénégalais xam nga am na ku fi wax léegi ne maa ngi féliciter son excellence président bi nga xam ne pont ma Saasum tuddee na ko mu Moussa Daffé ay ma lay féliciter ci loolu kon tey président nekk na koo xamante ni xam na ñu doon liggéey Sénégal démb ak tey te sa papa bokk ci kon nag na nga wàññi tension bi ak tempérament bi nga xam ne président mu ngi jox sa papa cër bi mu ko wax a jox bu mu sëkk nga rendre nag monnaie bi ci potindaale ki toog fii di wax géej naa ci salaatu fatiha Amadou Mame Diop di la jox di la saaga sa dal càmmoñ bi moo gën bàyyam waaw maa ko wax li ma wax maa ko assumé dama ne li ma wax maa ko assumé c'est maa ko wax na man yóbbantewu ma kenn wax dama ne man maa taxaw ci bi wax man maa wax li ma wax maa ko assumé keneen ku wax loolu ma tontu la parce que li ma wax maa ko assumé waaw yéen a saaga moo ci doon saaga ku saaga ñu saaga la on est là pour tout le monde il faut que ñu ngeen respecté ñu ñu respecté leen ku ngeen fi saaga ñu saaga leen parce que ñu rek luñ saaga ñun ay produits yi gaaraas lañu nous sommes des garçons de la rue ñun ñun rek oluñu saaga de koo ñuy saaga ñu delloo ko vous êtes là pour qui si on parle de développement on parle de projet de loi nañu wax ci texte yi wax ci ordre du jour yi nga xam ne loolu moo ñu fa andi te loolu mooy jëriñ sénégalais yi mais di attaquer ay institutions di attaquer ay nit di toj ay BRT di lakk ay biis lool c'est pas un patriote seen tur bi dañ ko war a changé waat ni ngeen tuddee seen bopp melu leen ko Sénégal ñëpp ko bokk li fi defoon la fi Ablaye Wade bàyyi Ablaye ko fi Sall fi la koy bàyyi. nañu xam ne li ñu am di ko yàq ñun ñoo ko moom tey jël ay patron université di ko taal pour ban njëriñ yéen ngeen da di bokk da ngeen xaar ba Adji Sarr wàcc seen kaw ngeen soog a bokk je vous remercie. merci chers collègues la parole Maïmouna Sène elle la parole à notre collègue Mohamed Aïb la suivante.